gars ñëw ba ñëw. pourtant ab sa léegi la coupé waat ak moom. waaw ah. jël la pare la may la may la pot. man wax maama gars yi ñu àndal rek mën a xaar ma taw benn boy daal laa fekk benn rek. moom ñoo doon ñoo doon liggéeyandoo Africa kii South Afrique booba tuddagul Africa Mer da nga toog Modou mii ne ko gis nga bàyyi la loolu Modou yàqu dana jàpp ba dëgg xam nga laaj ci moom témoin léegi ma ne témoin bi dana ci xam Thank you. daal leen wax ci Pape Gora Lo. waaw Pape day man yàgg naa ko xam ndax euh, xam nga Modou Lo dañoo yàgg ba muy xale. Mm-hmm. waaye nekk na góor gu ku simple la woon. ku dëggu la woon te it nekkoon jàmbaar. Mm-hmm. ndax magaloon na tolloon na foo xam ne retraité na waaye bañ ak nangoo sonn. Mm-hmm. moo ne moom loo xam naa ko ci moom. demoon na ba nga xam ne man su ma fu mu dajeeg man ci télé bi day taxaw. ñoo paa petit mbay ki ay ma ñëw mu ne ma baa yéen ngi góorgóorlu ah laa ma ji metti na de waaye góorgóorlu leen rek ma ne ko waaw wax dëgg yàlla nekkoon na koo xam ne ni maanaam sama dëngante Modou Lô da ko xamoon ba nga xam fu ñu daje ci tëli bi wala ñu ngi se day sax daam yéegal ma yéeg ñu toog di waxtaan lu yàgg mu ne ma ah seen laa ma ji metti na de waaye góorgóorlu leen baax rek ana Modou Ba li ñu koy wax mu ngi koy defoon mu ne ma waaw ku il est ku amoon reconnaissance la aussi vraiment maa ngi leen di ñaanal na góorgóorlu na am jom te na leen déggal loolu rek la daan wax loolu ma doon daan wax quoi jërëjëf salaamaaleykum ñu ngi lay delloo ziar. Eh, a wax ci Pa Gora waaw Pa moom lu ma mën a seede si moom mooy jullit loon woon quoi parce que man dama am benn boutique boo xam ne ay affaire électronique laay jaay en face unité 10 mais am na benn jàkka joo xam ne chaque jour ñoo fi doon julleendoo waxtu yëpp nag feebar bii sax moo tax ma nag moom ñu xaw a gëj a mais waxtu yëpp ñoo ko doon bokk foofu. waaye ñu ngi delloo ziar. alors Moussa ñu lay jaale lu ñu bokk. waaw man tamit ma leen koy jaale bu baax a baax a baax ndax euh, li fi jógee tey li fi jógee démb sax muy bàyyi góor a di papa ci loo Lo ku nekk mën na ko jaale sa bopp ndax ñun ñëpp suñu papa la. waaw ñëpp suñu papa la tey mën naa ni ñun ñëpp ñoo ñàkk ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla suñu borom xare àjjana. Hmm. alors ñu gis nii euh, góor gi ni ni Modou Lo nekk célébrité et tout mais kenn du ko gis ci combat yi kenn effacé daal. paa bi dafa nekkoon nit koo xamante ne nii nit ku ko xamante ne dafa nangu woon a liggéey li ma gën a marqué ci moom mooy nangoo liggéey ci la yar Moodu parce que Moodu am na ay combat am yoo xamante ne nii daan ànd ak paa bi dem entraîner 4 heures du matin ba pare ay 5 heures 6 heures mu ñëw ñu commencé géej entraînement mu nekk nit ku baax nekk wëllëre ak sunu benn papa bu ñu naan turandoo Modou Lo du Dieng ñoo dend wenn kër muy nit ku baax ñoom it ñu yar ñu ci yar bu rafet vraiment ñuy nit ñu baax nangoo liggéey wallahi azim loolu laa xam ci moom nangoo liggéey bëgg njaboot. fi jogee di nit koo xam ni di nit koo xam ni ku am diine nit ku nangoo liggéey nit ku am jom nag koo xam ni liggéey rek teral njabootam moo ko mos si dem na ba âge retraite terewul toujours leer na ñi fi teew ñëpp. maa lay jaar. waaye ma faral ñu ngi lay ñu ngi la koy jaale ñu ngi koy jaale Sénégal gi yëpp wax dëgg yàlla moom xam nga affaire bi moom day jékki-jékki rek daal sa kaw ah moo tax nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaale ñu wax naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ko jaale Sénégal gi yëpp ah au nom de tous les lutteurs du Sénégal ah. parce que daag wax dëgg yàlla góor gi euh, góoruloo yàgg nañ dégg euh, sawaram ak gëm liggéey ak euh, yar njabootam dañ koy dégg rek ay interview yoo xam ne tey musul doomam dem na ba dégg daal te taxul mu jël mu jël mu wéer mu wéer liggéey bi malgré ko doomam def na nekk na champion góorgóorlu na ba nga xam ne tey mën na koo teral waaye terewul terewul muy xëy di liggéey loolu tey nit ku am ngor gëm gëm boppam rek moo mooy def loolu te loolu nag war ay seede yoo xam ne dañ ko dégg ci nit ñi te xam ne nit ñi nag wax ñi xam ne maîtriser wuñ ko en mu jëm muy àllaaxira na ko gën coono bépp coono bu mos a daj ci njaboot rek yàlla na ko yàlla fay ci barke alxuraan. lan ngay conseil mu rek euh, tey ñun mbër yëpp dañu bokk ay réflexion parce que tamit euh, ay lañ rek ci ay takkusaan waaye mbër pour nga nekk sax il faut baax soo baaxul sax mënoo nekk mbër parce que sportif dara il dafa nga am esprit ak mental boo xam ne tey da ngay yéene nit ñi jàmm da ngay sportif pour nga nekk il faut nga baax d' abord sa xol ko parce que li ngay jànkonteel ci ay jafe-jafe ak ci ay obstacle mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy moo lay permetre nga mën a tolérer lu bañ bara bari mën a mën a mën a mën a mën a muñ la bari moo tax li ma koy conseillé rek mooy tamit mu gën a farlu diggante ak nit ñi ku am nit ñi la gën a góorgóorlu xam ne bés bi ñu tey nii euh, am kilifa ak euh, safoon nit ñi faale nit ñi mooy tax nit ñi nit ñi moo tax nit ñi kenn desul malgré que ak pandémie bi nga xam ne tey mi ngi am mais terew tamit nit ñi ku fi ñëw rek sa nga ñëwee waaw moo tax encore une fois ñu koy jaalee papam ji nga xam ne parce que tamit waajur dafa waajur dafa dafa dafa sori ci doom ba nga xam ne tey boo ko boo ko ñàkkee rek bu ñu dawalee ba ci kanam rek di nga xam ne am nga loo xam ne am na lu dañ ci yow. maa ngi siyaar. ñu dolli siyaar alors euh, sunu papa Gora Lo jóge fii. Ah. ñu la koy jaale di ko jaale euh, parcelle gépp ci li ñu bokk. alors lan moo la gën a marqué ci bi. li ma gën a marqué ci mooy keroog euh, bi bi ma nekkee Amérique bi Moodu tuddee doom a pare moom la ko tuddee ci guddi gi Moodu woo ko téléphone paas ma ko ñu waxtaan man ma yow bàyyi pare ñëw nga Sénégal ñaari yoon seet suma loolu du yoon. ma ne ko père incha allah ren moom su ma ñëwee ko noonu bàyyi pare waaye ñëw sax semaine bii di ñëw ma ne ko mu ne ma nag ma seet ma ne ko incha allahu rabi dinaa la seet ma ñëwee ma def deux semaine fii Sénégal dem seeti ko fekk ko këram ñu toog waxtaan mu fàttali ma daal yu bëree bëri sama sama moom ak sama papa yi xarit lañ woon ñoo bokkoon nekk ci marché bi ñoom ñaar mu may fàttali yu bëree bëri ñu waxtaan mu yóbbu ko sama doom bu jigéen sax ba mu gis ko ba ñaanal ko ak sama jabar ñoo fanaan ak sama doom ñu dem ba ñaa mu ñaanal ko ma tàggatoog moom démb barki démb may wax ak antaloo ma ne ko seen kër rek xaw naa fa gëj ana paa bi baa mi ngi feex anda ma ne paa bi moo ko jël yóbbu ko Lac Rose quoi ngi tane bu baax à ma grande surprise ma xëy lendemain bi dem koñ ba ci ngoon gi ñu noom paa gaañu na quoi yee affaire daal marqué na ma trop trop mu nekkoon tamit paa baax ku ñeme liggéey bëgg njaboot wax dëgg yàlla man loolu laa xam si moom nit moom da nga koy seede rek da nga xam du fekkoon xamu moom dara du ma taxaw fi di wax eh, loolu daal xam naa ko ci moom daal ku baax la bëgg njaboot ñu gis nii bi euh, yaag moodu pratiquement yéen a débuté ci làmb yéen a ànd mbapat di fréquenté diis ak yooyu alors lan moo la gën a marqué ci góor gi bi ngeen di tàmbali bëri mën mën a joxe lekk wax dëgg yàlla ñun ñëpp bu ñuy débuté wallahi azim ku deeg sa bàmmeel da daan paa bi daan toog añ bi yaatu ñëpp ñëw di añ kenn du kër gi kenn du la xool benn bët quoi te jamono jooju sax demeewul nii boobu boobu lool mm. mais ñun ñëpp fa daan añee chaque jour di fa toog di waxtaan mu nekkoon daal man daal li ma seqoon ak moom bëri na ba nga xam des fois dama waxtaan ak moom sax ba mu musa may mere ndax paa bi dama seqoon ak moom lu ne daal man lu ma neex laa ko doon wax sama père la man daal loolu daal marqué na ma ci moom bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla suñu borom xaare ko àjjana di rafetlu tamit suñu grand baabooy bi ñëw fii mu nekk bu baax daal waaw rafet na te moom lu mu def rafet na trop macha allah waaw kilifa la waaw ñu ngi koy maa ngi siyaar waaw maa ngi lay siyaar ku wér di lu ñu bokk suñu papa Gora loo jóge fii bi nga ko yëgee nan la def. waaw man démb laa ko yëg ba ma ko yëgee ma woo Pambay après Pambay wax na ma waaw euh, am na waaw ah, ma leen masawu parce que yaakaar naa ni paa bi suma papa la ndaxte man ci kanamam laa yaro xam naa ko bu baax xam naa njàmbaaram xam naa fullaam xam naa faydam xam naa ko bu baax a baax ndaxte man parcelle daanaka dëkk naa presque quinze ans kon xam naa ko lu ma ko xamee nag mooy fulla fayda jom xamee ko ci liggéey am ngor am fayda teg si képp ku nekk xale ci parcelle am naag yow la mission parce que dafa yaatu xol bi dafa yaatu dafa baax te loolu moo nekk si moom ma xam ko tamit mu bëgg njabootam nangu liggéey ama ñëpp jàmm mosuma ko gis ba li ma dëkk parcelle mosuma ko gis mu coow wala mu histoire mosuma ko gis si àdduna parce que man falaa laa dëkk kon boog dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana di ñaanal sunu rakk tamit Modou yàlla may ko xolub muñ di ko jaale di ko jaale parcelles yëpp di ko jaale famille yëpp di ko jaale axdu làmb yëpp ndaxte sunu papa la ndaxte yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay xëy na lenn bu amee sport sport la mais nag ñun ñoo bokk ndey bokk baay lii wane ne tey ñun ñoo bokk ndey bokk baay tax boo xoolee famille làmb ñëpp a ngi fi lii ma la wan nii ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ñuy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla xare àjjana ci barki xaadim rasul jërëjëf merci moom yàlla na yàlla fay ma sama xol ci barke ci Ramadan non dana woo dana woo do xol bu passé do fexe ñu toog inshallah dégg nga inshallah do fexe mooy ñu toog man xam naa loolu pertema bu ko kenn am am yàlla na yàlla fay sama ma leen ñu eh pertema do la sé waaw lu demee ci nekk waaw d'abord sant yàlla bu baax di Sénégal yëpp di ko gërëm sant waaw ah, ku ne xam na ni ñun Sénégal saa ñu xamante ne ñoom ñoo ngi sport bu boole wala boole bu tàkk. waaw sama yaay moom daal di ñu ngi gis bi nekk rek mu ko jaale sa bopp parce que àdduna yàgg leen ko am lam ñaanal loolu la ñëpp a ñaanal nga ñaanal fu mu nekk yàlla xal ko àjjana yàlla xal ko àjjana ama bokk nga ci bokk waaw li nga mu muñ ak ñaan fu mu toll nii soxlaatul lenn lu ñaan koy nit koy ñaan